dal leen ak jàmm ci seen sport 221 Pape Abou Cissé mi nga xamante ni ki démb rek kayiti xibaar yi doon nañu fesal ni amaana dinañ ko gis foofu la ca France ci club bi nga xamante mooy AS Saint-Étienne léegi mbir mi leer na Pape Abou Cissé joueur AS Saint-Étienne ndax tey jii la dem foofule amaana li nga xamante mooy visite médicale ba lépp jaar na ci yoon jamono yi na waaye nag pere la dañu ko able ci juróom benn weer moom défenseur international sénégalais bi njëg gi Cissé waaye nag mu ànd ak option d'achat bi nga xamante ni suñ koy xayma dina toll ci fukki millions ak ñett maanaam 13 millions d'euros bu fekkente ne prêt bi jeex na maanaam saison bi bu jeexee AS Saint-Étienne mën nañu jënd Pape Abou Cissé ci kaw ñu fay 13 millions d'euros. kon ki nga xamante ne mooy Pape Abou Cissé jamono jour AS Saint-Étienne la mbir mi officiel na te kayiti xibaar yaa ngi fesal ne sax amaana dina bokk ci match bi nga xamante ne Saint-Étienne dinañu ko abal ni ki suba ci dimanche ji seen diggante ak Nice lay doon. beneen transfert bu officiel mooy ki nga xamante mooy David Diaw di beneen sénégalais di évoluer foofu la ca Italie ci série B bi ci club bi nga xamante ne moom la ñuy wax Pordenone moom nag jógee na fa dal signé fi nga xamante mooy ci Monza ba tey nekk ci série B bi waaye nag Monza jamono mooy club bi nga xamante ne nekk ci championnat boobule bu fi saison bi amoon am nañu chance ngir monter ci li nga xamante mooy série A bi Monza fële marqué li nga xamante ni mooy du bi muy fukki bal nekk attaquant bi nga xamante ni club bu mel ni Torino ak Spal nekk ci Serie A bi ñu ngi ko doon topp waaye nag dafa tànn dem fi nga xamante ni mooy ca Monza moom ki nga xamante ni mooy David Diaw njëg gi nag bu ñu koy xeema ci somme bi nga xamante ni ñii di waa Monza fay nañu ko dina toll ci 3 millions d'euros ba tey ci transfert yi la woy ki nga xamante moom itam kayiti xibaar yi doon nañu fesal ne mën nañ ko gis ci English Premier League bi mbir mi sotti na Mbaye Diagne daal dinay jógee foofu la ca Galatasaray ca Turquie di daal di fi nga xamante mooy ca West Bromwich Albion nekk foofu la ca Angleterre West Brom nag di club bi nga xamante jamono yi 19 nekk muy fukkeeli place ak juróom-ñeent ci English Premier League bi maanaam bu fekkonte jamono yi mu ngi ci forme bu jéggi dayoo ndax kat marqué gum la lu toll ci neuf bi ak club bii di Galatasaray moom Mbaye Diagne dem na foofu la ci Angleterre ci club bi nga xamante ne mooy West Bromwich Albion kayiti xibaar yi fesal nañu ne tey ji ci ngoon mbay jaañ def na médicalam ba daal di signé jamono yi dañu ko able nag mu jógee foofu nga xamante ne mooy ca Galatasaray waaye nag mu ànd ak option d'achat gannaaw mbay Diagne dañu ñëw ci Mbaye Niang mi nga xamante ni moom ay mbiram officiel agul waaye nag jege na lool ndax buñ sukkas na ko ci kayiti xibaar yi accord am na ci diggante Genoa ak Stade Rennais ki nga xamante ne mooy Mbaye Niang dina jógee foofu nga xamante ne mooy ca Stade Rennais dal di dem foofu la ci itali maanaam delluwaat sax ci Italie la ñuy wax ndax nekkoon na fa ci ay jamono moom kii di mbay Niang dina dem fële nga xamante ne mooy ci Genoa loolu la nag maanaam dañ leen ko abal ba saison bi jeex waaye mu ànd ak option d'achat bi nga xamante ni buñ koy xeema dina toll ci 10 millions d'euros maanaam Genoa dinañu ki nga xamante ne moo di mbay Niang ñu abal leen ko ci juróom-benn weer bu saison bi jeexee am nañu option ngir jënd ko ci fukki million ci xaalisu euro. dañu koy jeexale ak programme mu Ligue 1 muy cinquième journée bi nga xamante ne war nañu ko amal ci weekend bi Douane dina dalal jàmbaar ci samedi ji lay doon ci samedi ji ba tey dakaar sacré dina dalal AS Pikine dimanche Ndiambour bu Louga dina dalal Mbour Petite Côte waaye US Gorée dina dalal NGB Génération Foot dina jouer contre Casa Tëngéej FC ak Jaraaf muy match bi nga xamante ni sax ñu ngi koy tuddee euh, derby des africains muy ñaari club yi nga xamante ne dañoo qualifié ci compétition africaine muy Tëngéej FC mi war a jouer Ligue africaine des champions ak Jaraaf mi nga xamante ne war na jouer Coupe CAF muy match boobu nga xamante ni war na dox ci diggante ñaari club yooyu la ci dimanche ji lay doon waaye nag ci dimanche ji ba tey Stade de mbuur dina dalal Seneps lii mooy match yi nga xamante ni war nañu ko amal ci weekend bi muy cinquième journée bu Ligue sénégalaise